seetaan sunu TV tey na sunu nag maa ngi fii ci kër Lac waa fekk si fan si club Lac de la jaatoo de la banlieue parce que ne waxtaan fan si club bi tey nan la war a def Modou Lo ci stade bi wala tey nan la war a doxalee nan la war a yóbbee seen mbër ba ci stade bi tey ma def blanqare dudul dugg naak ci biir wax ak fan si club ñaw ni ma leen ko waxee woon nee naa leen maa ngi nii ci biir parce que la Lac de Guiers bi la jaatoo de la banlieue tey nag parce que la waajee nuñ ne nee naa la xale yi takku nañ ni naa naa maa ngi jàkkaarloog benn jantal dëgg neexul sëñ bi nuyu naa a bëgg naa xam tey seen combat nag nga ko préparé ak la dëgër te la fa seen dem ci stade de l'amitié. waaw combat bi waajaloon comme ni ñu ko war a waajalee comme combat yëpp xam nga la dëgër moom daa nekk mbër boo xamante ni dafa assuré mbër mu neex a àndal waaw depuis comme ñu xale ba léegi ñooy a àndal ndam la ñu xam xam nga la dëgër moom xamul defet ndam rek la ñu xam pare nañ comme ni ñu ko war waaw ku mën a dem jàkkaarloo ku mën a dem rek jamono baax na. waaw dégg nga doxantu daal gis naa benn père ndànk rek mu taxaw daal def la dëgëram bu baax waa père day waaj noo waajee combat bi. ah combat bi maa dem si jàmm daan waajal ñu ñibbi si noonu ndam rek la ñu doon incha allah. waaw père ma déggee ni nga waxee da ngay def si jàmm daan waaj ñibbi si yow père daa mel ni nga ne wóol seen mbër. waaw ñun dañoo wóol suñu mbër bu baax sax. Hmm. waaw waaw. pare ngeen bor. doon nañ fépp ah kon loolu la. père bi nee na pare nañ Guédiawaye Alliance